alors euh, d'abord dañuy remercier suñuy partenaires yi nga xam ni ñoo ñu may tey jile ñuy waxtaane li nga xam ne moom a di loi sur l'accès à l'information muy forum civil ak njàppaleeg ab article 19 parce que avant tey ñun daanaka euh, ay attangi laata sax ñun ñu yekk ci bopp convention bi yoroon wàllu tàggat gi def tàmbali woon nañ def le tour du Sénégal di wër di waxtaanee accès loi sur l'accès à l'information parce que dafa doon loi bi nga xam ni loi bu am solo la parce que ñun suñu rôle mooy di joxe xibaar xibaar bu wër te wóor mais dañoo jàpp ni investigation suñ koy wax tey jii yow soo amul accès si yenn documents yi donc liggéey bi dafay des am na information boo xam ne day am limite te ñun dañoo bëgg nag euh, bile loi ñu daal di koy voté looloo waral tey jii ñu ñëw si biir atelier bi atelier bi dina tax participants participants yi nga xam ne ñoo nañ ñu xool contenu bi xam lan mooy solos bi la loi. beneen bi également ñu xam légalement euh, également lan mooy contenu bi contenu bi moom moo ñuy mën a tax également ñu préparé bu baax a baax parce que si biir contenu bi dinañ xam lan mooy suñu àq ak suñu yelleef mais également dinañ xam suñu liggéey loi bi fan la ñu yemale parce que souvent Matar mi ngi koy rappelé léegi des fois da ngay dem sur le terrain di liggéey nga jot benn document ñu gis ni c'est confidentiel wala leneen fekkee da nga koy exploité gis nañ ni mën na ci topp donc ñun nag loolu lañuy bañ moo tax jot nañu def le tour du Sénégal si ndaje yooyu yëpp nag daanaka bépp buñ si amal suñ si noppee dañuy def ab mémorandum mémorandum bi mooy ñaax kilifay réew mi pour que loi bi ñu daal di koy voté laata seen mandat bii ñu nii di jeex muy atub 2024 que balaa décembre ñu daal di koy voté boobu ba tey nag dañuy wax ni mu ngi si proce mi ngi si processus bi mi ngi si processus bi mi ngi si processus bi mais ñun ñu ci jéem processus boobu sax dañoo bëgg ñun ñun en tout cas reporter yi nga xam ne d'habitude ñun ñooy def investigation ñooy dem sur le terrain du liggéey ñu bàyyi ñu ñu am mouture bu mujj bi parce que ñu ngi doon liggéey am na mouture bu mujj bi am na ay atelier lu ñu def mais malheureusement nekk ñu woon ci atelier yooyu def nañu ay atelier liggéey si benn mouture boo xam ni leer nañ ñu ni wute na ak bi nga xam ne moom moo a dem assemblée nationale donc d' abord ñu may ñun ñu xam nu mu doon loolu xool ba xam lii am na lu ñu ciy gaañ wala déet ñu mën a joxe également suñu kàddu parce que lépp lu ñu def pour ñun te ñun amuñ ci kàddu dañuy ne dañ koy def contre nous dañuy profiter également si bi pour lancer un appel aux autorités pour que ñu accélérer cadence bi comme ni ñu koy faral di waxee ñoom pour que loi bi ñu daal di koy voter parce que loi bi loi bu am solo la pour Sénégal gépp Sénégal ñëpp xam nañ ni. kàngam lañ si wàllu signé ay xaatim ay dogal euh, muy ratifier ay documents également d'ailleurs euh, Sénégal Matar mi ngi koy rappelé léegi si introduction bi lépp loo xam ne ay convention la Sénégal daanaka ratifié na ko convention des droits de l'homme si euh, biir am na article yoo xam ni dafay garantir la liberté d'expression loolu tax dix 19 d'ailleurs taxaw kuréel googu taxaw donc dañoo bëgg ni ñu ko defee su le plan international léegi nag ñu daal di koy jëmmal parce que li nekkul contre les autorités il faut que aussi ñu rassurer leen ñu xam loolu noonu parce que ñun suñu rôle mooy informer mais aussi mu doon loo nga xam ne transparence la moo taxit am bi la loi dina ñu permettre ñu mën a def suñu liggéey convenablement permettre également citoyen bi sax su bëggee am benn xibaar mu dem fu mu ko war a amee day tax sax ñu lutter li nga xam ne mooy les fake news parce que su fekkee ne ñoon am nañ xibaar bu baax bi di ko joxe population bi aussi mën a vérifier boppam am accès bi boobaa lii nga xam ne njiitu réew mi da koy jooy saa su ne muy désinformation fake news yi loolu itam dinañu permettre ñu daal di koy lutter donc dañuy remercier di demander encore une fois kuréel yi nga xam ni ñoo njëkk ci xeex bi muy forum civil muy article 19 pour ensemble ñu booloo suñu doole ngir mun a xeex à ce ñu daal di koy voté gën a gaawee donc dañuy remercier tout le monde ci loolu. ne loi moom ñëpp xam nañu xel yi assemblée nationale lay dem. kàddu gu mujj gi mun naa ne ñoom ñoo ko yor laata njiiti réew mi di si def li nga xam ne moom itam moom moo si war di signer décret yi donc dañuy ñaax suñu naataango yi que ce soit muy ñi nga xam ne jaar nañ ci métier bi Pape Djibril Fall ak i naataangoom pour que ñoom itam ñu bokk si plaidoyer bi fexe ba nga xam ne dinañ jot contenu bi rassurer leen ñoom itam liggéey bi daf leen di yombal rek seen liggéey parce que ñoom ñoo ñu fa teewal donc nañu jàpp ni du lu ñuy gaañ mais lu ñuy bañ rek daloon ci code la presse bi mu dal ñu parce ba amoon yaakaar ne peut-être dinañu tax liberté d'expression ñu gën ko garantie fii si biir Sénégal mais gis nañ ne am na yenn dispositions yi nga xam ni entre temps dugal nañ ko si daf ñuy gaañ looloo tax ñun ñu bëgg ñun ndaw convention bi nga xam ne saa su ne nekk sur le terrain bi ñu jox ñu mouture bu mujj bi parce que mouture boobu moom mooy tax ñu xam lu si nekk. donc di leen demande ñoom ginnaaw ba ñu ko joxee ñu jox leen suñuy avis ñu jël ko en compte mais également su ñëwee ñu daal di koy voter le plus rapidement possible nga xam ni day bokk si li nga xam ne ñoom liggéey nañ ko bàyyi nañ ko. waaw ndëgg sarax la ñuy bañ parce que wax dëgg yàlla bu njëkk bi ñun ñoo ko liggéeyoon def si liñ ciy def mais ba mu desee lu dul signé ko lu dul voter ko. xam nga day jaar ci techniciens yi nga xam ne nekk les ministères borom xam-xam yi dañ ciy def xool lan mooy gaañ état ñoom itam lan moo ko dul gaañ mais su fekkee waxtaan mu doon loo xam ne lu consensus la am defe naan dina tax ñun ñëpp muy les acteurs de la société civile les acteurs des médias la société euh, la société sénégalaise état ñun ñëpp ñu bokk ci réew yi ñuy tudd parce que Sénégal nag kàngam la mos a doon ci wàllu woowu waaye suñu demee ba suñu dëkkandoo yëpp am ko Gambie gii ñu jege barki de moo njaay am nañ ko Sénégal dafa naa ni amatuñu lay benn yoon ngir am boobu la loi